ji am sañ ci kaw musiba yooyu waaye tuubuñu sax seeni bàkkaar ngir jox ko ndam li juróomeelu malaaka ma tuur ndabam ci kaw ngàngu neem rab wa noonu la na muur nguuram nit ñi di màtt seen làmmiñ ndax metit ñuy xarab yàllaay asamaan ndax seeni metit ak seeni taab waaye tuubuñu seeni jëf juróom benneelu malaaka sotti ndabam ci dex gu mag gi ñuy wax efraat